asalaamaaleykum mbokk xarit yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm ci suñu deuxième numéro suñu environnement comme ni ñu koy defee saa su ne dañ ciy ànd ak euh, monsieur Matar Diaw di environnementaliste te xam-xamam ci jëm ci wàllu woowu. tey nag ñu fas yéenee waxtaanee lii di baie de ndax nemmeeku nañ melokaan bi nga xamante ne moom la am léegi te il y a vingt cinq ans bokkoon na ci géej gi gën a rafet ci àdduna bi balaa ñuy xuusandi ci waxtaan bi monsieur Matar Diaw. ñu bàyyi la nga nuyoog mbokk internet yi ñuy seetaan. salaamaaleykum ami comme ni nga ko wax rek man maa ngi tuddee Matar jaw environnementaliste de formation di nuyu mbokku internet yu Hann TV yëpp di leen dalal fii aussi ci bed bi di leen nuyu di leen remercier aussi le fait que ngeen porté premier ak deuxième.

c'est c'est une baie confinée baie la bi nga xam dafa en forme de cul-de-sac mooy lan da ngay jógee Bargny ba bi ngay egsi fii ci booru géej côté bi amoo plage bu gën a dalee bu ko defee aussi la marine française nekkoon fi construire lu ñuy wax moule bopp moule ba mooy ben jeté jeté yooyu nag ñu daan préparé c'était une marine sorte de brise lame, brise lame mooy lan mooy damm vague yi bu vague yi avant mu egsi euh, terre pleine bi

pourquoi parce que colonie européenne bi yëpp li cëpp fii lu ñu daan nekk nga xooloon fii boo xoolee ci biir da nga gis ay bateau de plaisance bateau yooyu mu nekkoon zone bu rafet donc mool yi ben benn côté euh, tubaab yi nekk benn côté mais beneen importance bu am mu nekkoon zone dortoir pour le port autonome de Dakar parce que moo gënoon jóge doo passe ba sonn des fois sax mën nga dox dem port parce que booba instant bi àll bi yëpp lépp li fi nekkoon démb ak bërki démb moo doon li nga xam ne si ay garab la woon ak ay cours d'eau donc histoire Hann Bel-Air histoire Yaraax ma histoire Bédane mooy li nga xam depuis le départ jusqu'à présent situation ni mou rafété won dal mais surtout am jën am jën bare jën trop zone bi muy zone bi nga xamné ci zone habitant la habitat marin la won jën bi fu nek ci aduna bi yu ci bare dans l'océan Atlantique dafay jógee fu sore mais bu ñëwee fi lañ daan wax fi fi lañuy nané nenee di fi nen bu ñu demee ba mu yag tuuti ñu def ko récif ak ay bateau ñukoy koy wax armeelu bateau yi armeelu bateau yi zone la bi nga xamni ne si jën yi dañ fi daan ñëw di fa nen di fa reposer donc mu nekkoon zone bu bari gën ñepp di fi nekk loolu mo waral mag ñi doon xeex ba ñu am fii lu ñuy wax quai de pêche quai de débarquement quai bi tey nekk quai bi nga xam ne si c'est la quai c'est le quai bi nga xam ne pratiquement mu ëpp solo ci Sénégal parce que quai wu débarquement la toujours bu ñuy wax norme européenne pour voir partie hygiénique bi fi liñ koy jëlé donc mu population bi nga xamni si baré won na baré won na 2000 à 3000 habitants ren buñu démé bañu commune bi Yép ak bébé Yép pratiquement li fi nek ci biir commune and rek ñu ngi nek 75000 habitants boko jëlé nak mbaw ñu commencé parce que bébé 15 km la boko jëlé mbaw ba bi ngay exister presque population bi agna entre 100 000, 150 000 wala 200 000 habitants donc lolu dotul lu ndaw ñoo ñep nak fu ñu dem ba difa di fa njumtukaay di fa def lépp te xam nga rek dëkkuwaayu pêcheur bu njëkk condition d'hygiène yi daf daan parce que amoon na amul woon plan plan d'aménagement du territoire amul woon plan planification urbaine dañ daan dëkk dëkk yi daan dëkk dëkku concession la benn nit mooy jóge fële ñëw indi ay gerbaatam indi ay doomam indi ñëpp ñëpp nekk ci biir kër gi moo am plusieurs chefs de ménage dans une concession ñooñu nag yëpp problème lu ñu am moo doon problème mu problème mu set problème mu assainissement problème boobu moo daan tax ñoom aussi Mo pollution bu pollution domestique bu une deuxième question moi, loolu ci permettre vraiment aussi pollution industrielle et wax dégradation en tout cas pour de du village si commencé depuis que Bokor les pères fondateurs du village nous sommes ñëpp mais nous sommes yi des ay ay nappakat bu ñu ay nappakat am amoon ay mol yu mag ñu nga xam si mën nañu combat yëpp ñu leen di wax doon wax alaaji Mor Assou alaaji Mbay sar Baye Iba Fall ñom Ndiaye Moon ñi ñom ak góor gi Ablaye Fall ñoom ñooñu aussi tam génération yu ndaw top ci ñom ñu doon wax Mansour Tambidou le premier maire de la commune and ak ay pêcheur yu ndal wax ñom Diagne Gueye ñoom Bakar Fall ba tay ci ñom Iba ak ñom Lippo Ndiaye ak ñom Mbay Fay kon deug deug Yaraax jàgg na taxaw pour xex lolu donc il famille mais nous parce que famille qui en tout cas communauté pêcherie, nous sommes responsables, mais nous combat c'est pour mener vraiment ce combat avec nous il y a de cela 25 ans nous nekkoon a rafet dégradation bu avancé dégradation est très de parce que comme je ma retracé mais aussi itam bee am luñuy wax zone bi mu nek ñukoy wax zone industrielle presque tey boo jëloon cent usines ci Sénégal 80 vingt yi wala 70 dix ci fi lañu nek ñu implanté wu. bu jëk nak amul won luñuy wax code de l'environnement nit ñi dañ daan ñew rek ñu né ah développement développement ci industrie lay commencé bu muy commencé ci industrie rek ñu bayyi mu am industrialisation comme niko ko tubaab bi di waxee tout azimut amuloon ben norme environnementale bu ñu respecté xamuñu woon le milieu récepteur lii daf koy fi indi loolu nekk ba usines yooyu ñoom ñëpp seen produits chimiques yu ñu amoon ndox yu salté yu ñu amoon ndox yu bon yu ñu daan am dañ koy kenn du ko pré-traité dañuy ñëw rek ñu sànni ko ci biir géej comme ça boo gisee canal bi nekk suñu wet canal bu bees la dañu woon canal bi pour l'évacuation des eaux pluviales mais tey amul eaux pluviales, gis nga canal bi la muy sotti lii daf koy sotti am nañu treize émissaires treize canaux yu nga xam ne ñoom ñëpp ci benn aan la ñu sotti

ku fi sangu boo fi baree li ngay sangu di nga am ñetti xeetu jàngoro jàngoro bi nga xam ne sa bët yi dafay metti jàngoro bu xam si biir bi dafay daw wala mu am ay dermatose yu nga xam si dafay jëm ci der donc lolo yep. dañ ko gis loolu moo premier facteur bi la pollution industrielle deuxième facteur bi comme ni ma ko waxee woon ñun dëkku mool lañu amuñu assainissement système d'assainissement à bu baax lépp dañ ko daan jël démb ak bërki de di sotti on pensait que c'était le réceptacle naturel bi nga xamni si jël lepp donc ñaari cause yoy moy cause fondamentale yi nga xamni si moo tax bee situation bi mu nek actuellement. légui dañu bëggoon nga defal ñu benn petit résumé en français ci dégradation bi de Hann bi. merci beaucoup je pense bien que ah le village de Anne c'est un village centenaire il y a de cela quelques années effectivement comme l'on dit deux pères fondateurs. L'un, c'était un lébou bontain qu'on appelait Ndiagassi, le patriarche Ndiagassi. L'autre était un Walo-Walo, originaire du, du, du, du nord du Sénégal, qu'on appelait Bobo Ndiong. Lui, il était plutôt préoccupé par les questions maraboutiques. L'autre était un pêcheur. Mais tous les deux, dénominateurs communs, l'ensemble de leur famille ne pensait qu'à la pêche. Donc c'était une zone très calme. C'est la baie de Anne, avec son confinement, sa géomorphologie, a toujours montré que c'était une baie calme qui permettait à l'ensemble des pêcheurs, à l'ensemble de la communauté européenne à l'époque de venir faire leur activité touristique, leur activité économique, bref, leur activité socioculturelle. Et c'est la raison pour laquelle cela explique tout simplement la présence de la marine française. Ils ont construit ce qu'on appelle une jetée. C'est une sorte de brise-lame qui empêchait les vagues fortes de venir atteindre la plage. Et partant de cela, il y avait les bateaux de plaisance qui sont là, mais à côté, il y avait une très belle cohabitation entre la communauté des pêcheurs et la colonie européenne qui était là à l'époque. Les gens venaient pêcher, mais ça n'empêchait pas, ou par exemple, à la, soldatesque française de mener ses activités militaires. Donc, partant de cela, nous avons un village qui s'agrandit au fur et à mesure avec toutes les conditions requises de manque d'assainissement nécessaire parce qu'il n'y avait, avait pas de planification urbaine, il n'y avait pas de système de canalisation qui ont impacté négativement ce village. En 1939, il y avait ce qu'on appelait l'Akoyarar. Ce village-là a été totalement détruit à cause des incendies. C'était une manière, comme à la, manière de Fas Payot, et les autres quartiers qui ont été brûlés pour que les gens puissent déplacer. Mais comme ici, les réalités sociologiques font que les gens, qui habitent au bord de la mer sont très compliqués, très difficiles. Et ils, ont attaché, ils sont très attachés à leur milieu naturel. Il a fallu 20 ou 40 ans ou 50 ans après, quand on a commencé à voir notre communauté, notre, euh, municipalité et que le mouvement associatif devient très fort et très conscient des dangers qui nous guettent qu'on a commencé à parler de restructuration. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, 50 ans après, on parle de restructuration. Donc voilà les principales, les principales causes qui font que nous sommes dans une situation plus ou moins alarmante. Mais ces habitations-là, ces populations qui cohabitaient avec la marine française, mais malheureusement, ici, notre zone est une zone industrielle. Parce que on dit que le secteur secondaire, c'est le secteur sur lequel repose l'activité d'un pays. C'est la raison pour laquelle le, le pouvoir central d'alors a favorisé vraiment l'implantation industrielle tout à summit. Mais malheureusement, il n'avait pas tenu compte des conditions, des normes environnementales que cela pouvait vraiment créer. Donc les externalités négatives font que la baie a reçu beaucoup d'eau chaude, beaucoup de déchets, beaucoup de, beaucoup de, de déchets chimiques. Donc, ce qui font qu'aujourd'hui, la baie a reçu pas mal de, déchets et qui font que la baie est complètement polluée. Mais il y a une pollution industrielle, mais il y a aussi une pollution domestique, laquelle pollution domestique est activée et entretenue par les populations de la localité. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans une situation très délicate, mais la baie seulement, avec son confinement, sa géomorphologie, sa forme de cul de, sac, fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui, les populations de Barnier, les populations, toutes les populations riveraines déversent leurs déchets, ça échoue ici au niveau de la plage de Anne. Donc la baie de Anne est en train de mourir de sa belle mort, mais néanmoins, je pense bien que la prochaine fois, on y reviendra, on y reviendra avec euh, les mesures hardies qu'on avait prises. Voilà, beaucoup de xarit yi avons ni lañ leen deuxième numéro sur environnement di leen dox dig daje ci suñu numéro ci baie de Anne di leen jaajëfal bu baax ci teewlu bi di gërëm sama technicien yi bu naa ma jërë ngeen jëf